njiiti réew mi war na tàmbali dialogue bi maanaam waxtaan wi ci fanweeri fan ak ci weeru mai ci palais de la république waaye benn bis laataa loolu rek mouvement force vive la nation du f war la lancé moom itam ab dialogue national ci wàllum politique ba tax na ñaari dialogue yoo nga xam ne daal dafay tegloo waaye tamit dafa mel ni ruube ñu gis tam Sénégal naam sax waxtaan boobu nga xam ne kat ci ñaari wàll la loolee daal firnde ne kat daanaka daan dool doxatul la ñu gis tam acteur politique yi ak ñi nga xam ñooy bokk ci waa société civile ñoom sax la nga xam ne daal moo leen soxal mooy jafe-jafe wi ci waroo maanaam gis-gis yi bokkul njiitu réew ak ñi nga xam ñoo ko jàppal tànk ñoom ñu war a rassembler ñi nga xam ne kat ñoom ñoo ko bëgg gis kaal la loo xam ne kat wan cee waxtaan ci wàllum conscience politique waa acteur mouvement m ñoom moom daanaka sax li nga xam ne mooy Macky Sall bañ bokk lool daal moo nar a ëpp ci waxtaan wi ak candidat yi nga xam ne dañ na du ci bokk maanaam Karim Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko ñu gisee kat ay position loo xam ne daal tolloolewul waaye ñu gisee tamit daal am na ñoo xam ne la leen soxal mooy stabilité dëkk bii ci contexte bi nga xam ne am na kon nag li nga xam daal moom la xel nangu mooy gis nañ ne ci askan wi war nañoo mën a xool ci naka lañ mën a génnee ci guute gi nga xam daal Sénégal ci la dugg waaye tam ci euh, ngàll yëpp ñu gis tamit intérêt général ci ay gis nañ loolee daal euh, moo ñàkk waxtaan bu nga xam ne la mujj rek bari na. kon nag ndeysaan gis nañ ne li nga xam ne daal moom la ñu war a wecceente xalaata mooy ay acteurs yi nga xam ne dialogue politique moo leen soxal waaye tam mu bañ a jur féewaloo ndax féewaloo kat baaxul ci même réew kon dialogue bii nga xam ne daal gis nañ ne kat lu am solo la naam waaye ñaari kaay ñoom kii jël fële kii jël fële loolu yaakaar ne kat dëgg moom doo xam fu mu féetee kon doxalin bi nga xam ne kat dafa mel ni dafa daal di yaa wooroo ci gis-gis day tax rek ñu mel ni daal dañoo nekk rek ay ennemis maanaam ñi nga xam ne seen noonoo kon gis nañ ne violence bi nga xam te moo judd loo xam ne kat dafa gumba tax lu te kenn bëggut te dëgg sa morom loolee rafetul kon ci anam yi nga xam daal war nañ cee mën a waxtaan loolee day gën a tax rek bu ko fekkee ne askan soxal na naam kon kat ñu daal di uh, bokk ci wërngalu taabal bi dialogue bi naam naam war na fexe ba li nga xam ne daal moo am ak gàkk-gàkk ñu mën koo defar waaye tamit mënoo nekk póotum biir bu ko defee adversaire ku ci nekk daal xam nooy taxawee